Salut les amis de eSport TV, merci encore gars de la confiance de nous les merci de des likes, merci de abonner, merci également de baisser les commentaires. Un plaisir au nous les gars, chaque fois de partager une information, hein. mbokk sénégalais fait pour les mantinek 14 régions du Sénégal àdduna wërgal Cup, ñu ngi leen di jaajëfal ñi nekk également ci l'hôpital hôpital et sécurité du feebar Il na suñu borom fëgg seen bopp ngeen wér ak jàmm ñu nekk ci kaso yi nga xam aussi erreur judiciaire gi ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génn leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñu dellu àdduna suñu borom xare leen àjjana fi de si gaay te ñu on avance ensemble dans la magie de eSport TV l'actualité en continuer actualité bi ñu fas yéene waxtaane Aliou Cissé mi nga xam ndax àdduna tey euh, ci li nga xam moo jëm donc ci li muy waajalee euh, équipe nationale du Sénégal ak match bi contre Hollande Aliou Cissé nag am kàddu yoo xam ne nag wax na ko yoo xam ne nag mën na dab dal xel ci tamit bu fekkee ne jëfe nañ ko ci terrain bi loolu daal mooy li ëpp solo waaye d'abord gars yi li ñuy wax rek mooy que ne lii image bi lan la leen di fàttali maa ngi koy def tamit euh, yi di wax gars yi ah. Ni, euh, ban âge ngeen amoon ñeen ñi ñu fekkoon ne nañ ban âge la amoon ak lan moo leen gënoon a marqué ci jongante bu mel parce que tamit c'est également aujourd'hui une le Sénégal décrit une autre histoire pendant ça également li nga également mooy ah, donc xam ngeen challenge foot Academy defoon naa benn euh, interview mag ak seen président ñoom nag tey waat nañ seen collaboration bi ak waa club brest 3 plutôt jëm ci li nga xam ne mooy wàllum jumtukaay ak aussi wàllum accompagnement pour club bi nga xam tamit mooy challenge foot académie Iñaki Williams moom numéro 19 lay sol avec les Black Stars du Ghana euh, donc l'attaquant donc de Bilbao donc actuellement dans le Mondal qui na ci euh, jour donc euh, Black mom lañu Tunisie Iran Iran Sénégal Tembo, Tunisie mo leen buts à 0 cette équipe tunisienne comme on dit hein, ñom lima neex si pragmatisme rek gauche droite dañ lay équipe iranienne donc 2 buts à 0 ki également Anas Zarouri remplacé ki Amin Harit du côté des Lions de l'Atlas donc du Maroc euh, nationalité belge petite catégorie amna les football motax qui dit donc Walid Rega qui di koy woo Allemagne national tay mo Oman un but à zéro ngeen gis équipe bi Tech tek teg Mokoko nak le plus jeune joueur de l'histoire de la Mannschaft bu démarrer match notamment également ci âge Mokoko donc on boy que la l'Allemagne compte sur lui Lionel Messi la Pulga tay dafa dougal du pied droit gars va ba des passes décisives décisive actuellement il est en plein dans la coupe du monde la Pulga objectif am nee jël coupe du monde bi parce que c'est peut-être sa dernière chance daal di jël Lionel Messi nga également il a marqué son 91e but hein gis ngeen ko avec équipe contre les équipes nationaux hein donc gis ngeen ko mi ngi nii Algérie bokku nañ ci nga xamné donc euh, Lionel Messi dugal na fa ñaari but hein donc euh, gis ngeen ko Uruguay six Équateur six Brésil cinq Lionel Messi daal donc il est toujours au rendez-vous mom nak néna actuellement aussi du côté du Paris Saint-Germain néna fofu dal mi ngi ci jàmm néna première année année d'adaptation waaye fi ne nii muy moom di njabootam ay doomam ñoom adapté wu nañ ay ñi ngi gis seen bop bu baax a baax ci Paris Saint-Germain mais nak lolu day mel Paris Saint-Germain a une chance prolongée Lionel Messi qui dit Cristiano Ronaldo CR7 entraîné wul ndax dafa am problème le biir et ah, ay problème gastrique la am tax entraîné wul ak équipe bu Seleção bu Portugal moom mi nga xam ne actuellement daal polémique bi mi ngi judd te am na beneen partie vidéo boo xam ne nañ war na génn Christopher Nkunku malheureusement moom nag ah, mais nee na donc euh, fi mu ne nii ci liggéey bi ba wéraat dellu tamit nee na aussi euh, kii di Camavinga aussi nga xam ne nee na moom mi ngi koy masaw li ko gars yi jël di ko wax yenn kàddu yoo xam ne kàddu yu ñagas la ndax loolu du loo xam ne mooy defar Ougminson gis ngeen ko masque lay sol gars yi ci Coupe du monde bi mi ngi nii le joueur de la Corée ah gis ngeen ko kanam ngi ni mu xawee néewi nii ak opération bi mu def moom son mi ngi nii donc moom mooy seen pépite di seen star donc actuellement donc masque daal lay tàmbalee di sol euh, fi mu ne nii waa FC Barcelone ñoom it nee nañ dañuy def ci daan bi nga xam ne daan nañ ko kii di Robert ne ñetti match lay daal di toog du jouer ci mu nii nee nañ ngi ci demaat fa nga xam ne mooy tribunal arbitral bi nga xam ne moo joxe ndigal boobu ak waa Liga pour daal fexe ñu daal di Dan guni mel équipe nationale du Sénégal gaynde yi gis ngeen ne ah donc sen entraînement lañ doon amul mu nekkoon 4 quatrième séance hein ils étaient au complet 25. yep yëpp ñu ngi fa woon laf cat laf ciat kenn amu ci benn gañu gañu ki nga xam nag mooy El Tactico Aliou Cissé l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal et aussi le sélectionneur national moom nag wax na ci jogante bi war a am suñu diggante ak waa euh, Hollande nee na nag li ma ci mën a wax mooy que ne lépp ci terrain bi la war amee ñu dañoo war a jëf ci terrain bi nee na Hollande nag équipe bu baax le baax la match bu métti métti la nar a doon équipe Hollande nag équipe boo xam ne équipe bu am ay individualité la am aussi ay collectif waaye ñun bu leen fàtte ni am nañ expérience expérience boo xam ne jëlee nañ ko ci coupe d'Afrique bi waye tamit jëlé nañ ko ci li nga xamné moy donc kan plutôt mondial 2018 bi ci Russie mu tax ne moom jàpp na fi mu ne sérénité jamm amna ci équipe bi amna idée bo xamné mom moom Cissé euh, mi ngi koy teg ah, mi ngi koy togg bu ñoree nag gars nañ ko xam mais actuellement Sénégal mom dañu wara doon benn say accompagner équipe bi parce que ñom nee nañ si terrain bi dal lañu wara jëfé a Hollande ñu it équipe lañ bo xamné ñun on a notre place ici et que objectif mom moom Cissé xam ngeen ko moy ci coupe du monde bi fexé ba yóbbu Sénégal quart de finale loolu la ko gaay dal di. fixé comme objectif et gars yi comme on dit Sénégal benn bopp la kenn du ko xar ñaar nañu gën a ñaar ñun ah, ñu ndamu ñëpp la ndamu ñëpp ñëpp la ñu jàpp suñu gaynde ñu pousseen ba ñu def loo xam ne kenn musu ko def jël ko du monde ndax ñun war ñoo complexé naan non Afrique waru ko jël fu ñu war a tuddee club européen club américain war nañ sud américain war nañ fa tuddee Afrique te Sénégal mooy tey suñu ndam way leen di like way leen di abonné gars yi jaa ngeen